Mohamed mi nga xam ni xam na ay jukkoom yu sell ak dëggoom ak njubam woo nañu ci lu xam yàlla te ragal ko te bàyyi sunu yàlla yi nga xam ni bant rek la woon ak doj ndax dangeen ngeen di fenloo suñu yàlla yi ñun duñu jaamu ay xërëm duñu jaamu bant wala ay doj leer gi ne ci ñoom moom lañuy ñuy jaamu te daf ñuy dendaleek suñu borom du jaam ñëpp xam li ñëpp xam yow Amar du leen seen diine digal. xamal nañu ni yàlla nanu topp yàlla mi nga xam ni kenn rek la. di di julli. di wax dëgg tey sàmmanteeg ak yi te matali wëllër yi ak dëkkandoo yi. na ngeen moytu fuur deret ci lu dul dëgg. na ngeen moytu njaaloo maanaam mooy yàlla. ak wax ju ñaaw. na ngeen moytu sàcc. alalu jirim te ngeen moytu du tëraxal jigéen. jigéen lan la seen diine wax ci jigéen. jigéen moo góor ñoo tolloo ci lislaam jigéen moo góor ñoo tolloo fa yàlla di jënd jigéen ñi di leen dundal ba noppi di leen jëriñoo te li ngeen leen di sant buñ ko buñ buñ gantalee sax ngeen mujj jaay leen <laughs> nan nga mën a bañee jigéen ji nga xam ne moo la ëmb ci biiram ki nga xam ne moo la nàmpal ba nga nekk xale bu tuuti ba nga nekk mag yow amar lu tax ngeen jëmbat seen yàlla yi nga xam ne yàlla mi kenn moo leen di dundal sunu yàlla ji moo yàlla ñëpp mooy yàlla ibrahima di yàlla moïse di yàlla zakaria ak jean ak jésus christ duñ leen teqale ñeem yonent yooyu am na lu jóge ci yàlla ñëw ci ñoom ku leen xamal tur yooyu yëpp alxuraan ji nga xam ne moom la ñu yónni ci mohammed Muhammad Muhammad mi nga xam ne fii lañ ko xamoon mu di jirum di sàmm ay jur. Isa si bant la daan liggéey ci suuf su màgg sa dëgg-dëgg daal moo wax ne li Muhammad indi ak li instant indi ñi ngi bawoo ci benn leer. yow sang bi ñii de boo déggoon li ñuy wax ci yàlla instant sax du la neex. lu ngeen wax ci Isa. te ñoom nee nañ sax yonent yàlla Isa nit la rek comme ñun. wax leen wax leen li ngeen wax ci Isa. ñoo ngi lay wax li Muhammad wax ci moom mooy kàddu yi nga xam ni wax na ko ak soxna Mariama waa laaj leen yonent yàlla Insa nu juddoo ndax seen alxuraan jooja ngeen di wax indi na dara ci juddu Insa waaw ndax mën naa ko wax bu ci amee ndigal jege sil wax na Mariama ci téere ba ni nga xam ni moom la génn ci biir bokkam yi dem fa sore ca la nëbbu nag ci seeni bët ca la ko yàlla yónnee ruuxam ga mu ñëw ca moom ci bindu doomu Adama mu ni ko maa ngi nekk ci kaaraange sunu boroom fekk maa ngi ragal yàlla mu wax ko ndaw jóge ci yàlla sunu boroom ngir jox la doom joo xam ni ku sell lay doon maryaama ni ko man nan laa mën ame doom te mosuma jote ak góor te góor sax mosuma teg loxo mu ni ko yàlla lu mu bëgg loolu yomb ko te dana doon te dana doon ci nit ñi te yàlla lu mu dogal rek loolu dana am amul ci suñu diine ak seen diine lépp dig wii yow amr doju oor du tax sax ma jébal leen ñi jaafar demal yàgg ñi nga àndal dund leen ci réew mi nu mu leen soobe ba yàlla dogal seenug dellu mbir mu mënta nekk la mu mënta nekk la Mohamed mu ngi ŋàññ sunu kilifa yi ba ci dëkk yu sori yooyu loolu baax na waaye danañ ko def mu ah, sori makka waaw kan moo ko fay aar Abu Taalib dañuy dogoog moom Banu Hashim ñu dogoog ñoom ak képp ku ànd ak ñoom ci Quraysh dootuñu jaay Mohamed ak ku ànd ak moom dootuñu jënd ci ñoom duñ leen jaay kër duñ leen jaay lekk duñu séq ak ñoom dara duñu takk ci ñoom ñoom it duñu takk ci ñun te ñu jël leen nag sànni ji leen ca xeer ya wala boog ñu génn ci diine Mohamed ji noonu la wéyale ay ati at Muhammad ak ñi mu àndal ñuy jànkoonteeg ay nattu ak i bala waaye bi xarnub ñetteel xadiijatu ndeyu jullit yi di daj ay coono ba ni mu faatu at mi Abu Taalib ci la génn àdduna muy naqar mu nekk atum njàqare hitam Suhayl lii lan la dañoo bëgg a xotti liñ fi taf lii moom dafa ruslu dindi leen li ngeen fi taf kenn ci yéen bokkul ci nitu Muhammad mbir mi sax yitteelu leen ñun danoo bañ a xeex ak ñoom yéen a ngi nii di lekk jamono ju lenn seen askan di dee ak xiif si montagne yi ci kayit wi ci la ko kilifa yu màkk yi xaatima woon soppi wun ci lenn nag te dogu wun ngir soppi ko ko delloon fi ngeen jóge woon nañu dem lii de mbir mënu fexe ci guddi la yéen a doon wut kiimaan kiimaan gu réy ngi nii ci seen kanam kiimaan goo xam ne ki gën a tuuti xeebu ci mbindee fi sunu borom yi moo ko def ak max rekk tey not na leen yéen sangi màkk seen rëy gi toroxal na leen seen waru gi daaneel na leen mi ngi nii tey ak lu ngeen mën a def seen kàttan gi seen tiitër bu rëy bi seen tiitër bu rëy bi ak li ngeen tabax lépp ciy tappale mënta feeñ ci kanam màgg sunu boroom gi waa ngi nii xool leen dara desu ci lu dul baatub yàlla sa tur wi yow sunu boroom yàlla nee na lu ngeen mën a def ci àdduna ci tappale dinaa ko feeñal ba mu génn ma def ko ni pënd buy naaw waxe yàlla rekk ay dëgg yéen sangi màkka amatu leen fu ngeen jëm jamono ngi ñëw seen mbon gee leen di jeexal ba ngeen jeex tàkk taxawaay bekk a màgg Hamza mii doon rëbb gaynde tey muy rëbb ay gunóor. waaw. waaw bulul tey di ëllëg bulul tey di ëllëg. jot na ma wax ak yéen ndax sama waxtu jige na waaye du loolu dong tax ma woo leen. dama leen a wo ngir lu gën a yéeme loolu dama woo Muhammad ngir jubale leen waa moom naka la nuy woowe ci loo xamante ne bii ñun ñoruñu léegi daal ne ko na yemale ŋàññ gi muy ŋàññ sunu yàlla yi nanu bàyyeek sunu diine ñu bàyyeekoo diineem bu ko nangoo ñu juboo waaye moom benn kàddu rekk la sàkku ci yéen moom bu sàkk woon fukki baat yu mel noonu ñu jox ko waaye nag baatub yàlla kenn la kenn la mukk ndax dangeen a ñemewula dégg li muy wax dëkk bii nga xam ni dafa weddi dëkk bii nga xam ni dafa weddi njaxar li tegloo na démb ñàkk nañu xadijatu nga xam ni nekkoon na di ndey ci maan tey abu taalib desewuñu kenn ci màkk koo xamante ni wéeruwaay la wala muy làquwaay siraan yonent bi de dafa bëgg a sori màkk léegi te bu dafa bëgg a génn dem taayif taayif goo nga xam ni amul abu sufiyaan amul abu jahlin amul abu jëm ci taayif gi nga xam ne mooy ñaareelu dëkk ci dëkki arab yi ñu ngi gàttanu yonent bi mi ngi ànd ak doomu jiitleem ci yaakaaram ngir mu am dimbal ci giir gi ñuy wax saqiif ñi doon ay sang ci taayif gannaaw bi mu ñàkkee yaakaar ci Quraysh ragal leen yàlla yéen samam nit ragal leen yàlla ragal leen yàlla ragal leen yàlla nit nasaraan bu jógee nay nawaa jox ko lii tànkam yaa ngi nàcc mi ngi ñaan boroomam yow sama boroom ci yow rekk laay jàmbat sama néew doole gi ak sama néew pexe mi sama doyadi gi ci kaw nit yow yaay ki nga xamante ne yaay kiy gën gi ki yërëm yow yaay boroom ñi nga xamante ne dañoo néew doole yow yaay sama boroom ci kan ngay wéer sama mbir ci aji sori joo xam ne dafa may noggatu wala boo ci noon boo xam ne danga koy wéer sama mbir su fekkente ni wàcce woo ci man samer duma faale kenn waaye nag sa jàmm moo gën a yaatu ci man maa ngi muslu ci sa leeru kanam gi nga xam ne leeral na bépp lëndam te itam ci la mbirum àdduna ak alaaxira yépp yéwé na maa ngi muslu nga wàcce ci man sa mer wala boog mu dagan ci man sa sànj mujjantal bi yépp mi ngi ci yow ba keroog ngay gërëm amul benn pexe amul benn doole lu dul ci yow yàlla rek. bu ma sañoon daal ngeen dem. Taïf doonatul barab bu wóor. mës na jànkuwanteeg bis bu gën a bi. yàlla daal di wuyu woote bi yonentam bi gannaaw at moo xam ne jaayante naag way ajkati ma yi cig yàllu ci lislaam ci demonoy aj ga ca topp ci càgganteeg waa xurayshi ñu def ay kuréel yu bokk ci aws ak xasraj di jaayanteeg yonent bi ci di ko aar di ko dimbali ñu dëppoo ci ñoom ñooy yaakaar yonent bi gàddaay ñëw ci ñoom ngir seetal seen réew mi ci lor ak tuur deret ndax jaayante ba du mat fekk ñu xam ne li nuy jaayante lan la def leen dànk ak dige bi ngeen def weddi ngeen ngeen mboolem yàlla yi da ngeen di dige ni julliti doxandéem yi ñooy doon seeni mbokk yéefar yi doon seen noon donte ñu leen jege leen yéen a dige toj seen yàllay xeer yi niki it niki it yàq te lakk seen xërëmu bant yi yéen samay mbokk bu fekkee ni mën ngeen nangu loolu kon jébbalu leen bu fekkee ni da ngeen am leneen loo leen ciy ragal bu leen jébbalu waat naa ci ki yebal ci dëgg ne dinañu jaayante ci aar la ni ñu aaree suñu bopp suñu doom ak suñuy ñooñ suñuy ñooñ ci nii lañu fas ne jaayante ak yonent yàlla bi képp ku jalgati charte yi lu la ci fekk yaa ko def seede nañ ci yàlla ak yonent bi ne ñun waa xawsu ak waa xasrej ñun ñooy waa ansaar te dinañu jaayanteeg yonent yàlla ci dégg ak topp ak yaatal lislaam ci sunu bopp sunuy doom ak sunuy alal ubbi sunuy xol sunuy buntu kër ngir ñi gàddaay jëm si ci ñun te di suñuy mbokk jullit